yéen ñaata maa ngi leen di fay bu baax yéen waa Sénégal. tey ñu ngi lay fekk fii bi. waaw euh, euh, ñaari mbir moo ko waral déjà animatrice la et c'est normal que Aïda Samb euh, organiser ma ñëw. beneen bi mooy artiste la boo xamante ne nii sama xarit la. waaw ndaxte ki nga xamante ni mooy Seyni Ndiaye Fall ñëpp xam ko ak moom euh, tey dama ñëw accompagner jabaram muy Khady donc euh, mu nekk koo xamante ni tamit sama sœur la euh, nekk koo xamante ni également am na nu mu féete ci Aïda Samb donc tey dama si am ñetti cër moo tax ma ñëw tey. voilà ñu commencé Aïda Samb noo gisee présidence Aïda Samb si la scène musicale. nit ku Ah, nit ku nit ku am patience la parce que ayda non seulement dafa mën a woy mais euh, woy bi daf ko donn si ay maamam ba tey donc nekk na koo xamante ne tey jii euh, bu bu doon keneen la heure bii dina fekk mu forcé ba def leneen mais bu ngeen xoolee ni tepp tepp lay def ndànk-ndànk bu waree génne génne su waree ñëw ñëw tey bi mu waree ñëw King Fat Palace dafa ñëw King Fat Palace te loolu euh, patience am moo ko ko may ak teyam. moom mu ngi avancé mu ngi évolué non tey album bi rek consécration la c'est-à-dire tey jii album bi boo ko dégloo nga xam ne Aïda tey jii màgg na côté way màgg na ci côté maturité ci xelam màgg na également ci xam musique naka la war a doxee donc tey euh, évolution laa gis ci Aïda Samb. donc si albumam bi. album bi neex rek neex rek benn boo ci téye rek mën nga cee fecc ba doyal man nag bi nga xamante ni moom la def hommage parce que dama nekk groupe Futur Média mais woy bi nga xamante ni mooy moom la rendre hommage Youssou Ndour woy maamam bi mu reprendre ak euh, woy bi nga xamante ni moom la woy Dalinkoori jigéen ñu baax. Dalinkoor donc c'est sans son Dalinkoor. ah neex rek jigéen ju baax noonu la war a mel waaw. Aïda Samb que taskari. tasul kër yi c'est-à-dire tey jii ku ci nekk na jël rek mu positif nga féetale ko mu rafet c'est-à-dire loolu lañ war a xool mais waruñu xool loo xamante ne lu ñaaw la man sama me dis que ni tey jii Dalinkoor jigéen ju baax la joo xam ne dafa nekk ci kër di sëy di euh, ñaw bu problème amee mu réglé ko bu jafe-jafe amee mu réglé ko suñu ko dóoree mu muñ euh, toog yàlla may ko fa doom ju baax lool la ñu suñu maam yi waxoon lool la ñu suñu yaay yi waxoon donc je pense que jigéen ju baax noonu la war a mel. Euh, voilà ñaatam yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi kii groupe Futurs Médias dafa toj may may restaurant Diop lan moo tax duñ la gis télévision bi lu bëri. non parce que man déjà maa ngi doon génn yeew man booy xool bi télévision doog di tijji maa ngi woon ci rajo bi laa nekkoon donc télé bi euh, mën naa ni dañ ma fa soxla ma ma dem liggéey donc bu ñu toogee ba émission bi yeewu leen bi ñu daan def defatuñ ko ñu éliminer ko ci programme bi donc je pense que ni maa ngi doon def seetu bi mais seetu bi aussi heure bi ma joxoon dafa tol euh, kii dafa heure boobu. laay def émission 17 18 RFM donc mënu ma def fi 16h 17h ma dem defi fee parce que fee 18h laa war a wàcc mais yéen a ma doon gis ci seetu bi et puis voilà ñi nga xamante ne ñoo yore programme bi heure bu ñu ma woowee ma ñëw liggéey. Euh, voilà ñaata ba xombal. xombal ma si bilan. sama dëkk la fa laay juddoo commune la commune waaw pour pourquoi pas ñaata ba candidat intéressé euh, euh, euh, non man depuis 2013 maa ngi accompagner sama dëkk parce que fa dëkk di def sociale ñëpp xam ma ci loolu may accompagner suñu maire également monsieur Magueye booy donc mu nekk loo xamante ne tey jii nekkagul ci sama xel. nekkagul non non non nekkagul ci sama xel. soo xool xombal da nga koy représenté tur chaque jour xombal mais parce que nit dafa nit dafa war a fier ci fi mu dëkk. man loolu depuis bi ma ñëwee laa ko xam nit dafa war a fier ci fi mu dëkk nit dafa war a fier ci cosaanam donc loolu moo ma dal te tey jii bu dee da nga dëkk ci dëkk nekk fa nekk koo xamante ne nit ñi dañ koy dégg mu xaw a célèbre tuuti je pense que nit ñi war nañ xam ne yaa ngi xalaat seen dëkk normal. ñu lay jaajëf. man maa ngi leen di jaajëfal jërëjëf.